asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ci ndigalul sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Montaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Saalihu moo dellusiwaat di feddliwaat ak yaakaaram ci Seexuna Ahmadul Xadim di santaan booleem njabootuk sëriñ Touba gi ak taalibe yi sëriñ Touba yi di leen tàllalaat loxo ci na ma ko baaxoo defee at mu jot ci liggéeyub ngóobum Touba tooli Touba Daaru Salaam liggéey boobu nag jàpp nañ ko ren ajjuma ñaar fukki fan ak ñett ci weeru tubaab sëriñ bi nag nee na mi ngi ciy fàttali ko rakkam di jëwriñam di Serigne Saliou Mbacke moom Serigne Abdou Lahad di ñaan yàlla sun borom dolli ko yërmandeem ak tawféex di ci soññi nag ñii nga xam ne ñoo ko jekk moom ñoom ñoo ko daan àndal Serigne Abdou Lahad Mbacke moom Serigne Modou Abdoul Khadir Serigne Moustapha Diakhaté moom Serigne Modou Khayri Serigne Fallou Tine sanc Daaru Salaam Serigne Khadim Tine Mbacke Bawal Serigne Cheikh Modou Fall Baye Fall Serigne Djili Niang Touba Afia Ribo Serigne Djili Lo Touba Kër Niang Serigne Mass Ñing Touba Mbacke Serigne Moustapha Guèye Daaru Taneeful Serigne Ibrahima Ngom Bokhatul Moubarak Serigne Ibrahima Darame Louga Bassirou Wade Kaolack Serigne Mbaye Diop Mbour Serigne Lamine Diallo Ndakaaru Serigne Talla Wade benn barak Serigne Abdoulaye Fall ak waa Thiès gépp Serigne Cheikh Mbacke Aan ak waa Aaneen Serigne Ndiame Aan Mbodiène Serigne Modou Lo campement nga xoox Serigne Modou Sall ak waa Xabaan gépp Serigne bi nee na bàyyiwul kenn ba tey Serigne bi nee na ngi ciy soññi Serigne Ibrahima Ale si. daaru salaam ak mboolem njabootu sëriñ Mor Khady si sëriñ Mourtala si Mbaban ak njabootu sëriñ Malick Bassine si sëriñ Abdou Samad si di jëruñ ci liggéey bi sëriñ Alhaji si Minan sëriñ Baara si sëriñ Modou Mbacke si ca Touba moom sëriñ Moustapha si sëriñ Abdoul Khadir si sëriñ Basirou si sëriñ Cheikh si Croix Mouride sëriñ Mor si kura Mouride sëriñ Mor Lo Touba Ali Mbend sëriñ Muxtaar Lo Touba Ali Mbend sëriñ Mbay Lo ca Xaj ak njabootu sëriñ Ali Mbend sëriñ Baara si ca Serigne Xaadi sek Seck Koupantoum Alaaji Seck Ndimbulaan Koungheul Alaaji Ibrahima Bousso Ndaw Alaaji Mor Lawa Kouram Alaaji Mor Ndiame Wilane Kër Laayeen Gépp Alaaji Wilane ci turu Ngatu Malick Gépp Serigne Ousmane Gueye ak njabootu Serigne Abibou Gueye Baye Mamoud Diabo ca Afia Mouride Serigne Issa Dieng Ñing Touba Lambu Serigne Ibrahima Silla moom Serigne Fallou Silla Condox Serigne Cheikh Sall Touba Cilla Serigne Falilou gay Touba Patakor Serigne bi day na mi ngi ciy soojo ba tey Serigne Abdoulaye Ndaw moom Baye Cheikh Ndaw Touba Alhaji Souleymane Ndaw Caxaj Alhaji Ibou Seck ak waa Taïf waa Taïf gépp Serigne Sangooji Sow ca Taïf Seck Serigne Cheikh Sarr Touba caareen gépp sëriñ bi daal mi ngi ciy soññ ñëpp képp ku dégg saw tur ak ku ko déggul sëriñ bi nee na mi ngi lay soññ ci liggéey boobu di ñaan nag képp koo xam ne teew nga ci liggéey ba yàlla mi mën a faj aajo yàlla na faj sa aajo ci barkeb Cheikhuna Ahmadul Xadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa